mboolem yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen nuyu bu baax a baax di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp invité yi ak euh, suñu papa Bamba Mboup chaque jour li may wax moom laay waxaat rek suñu papa Bamba Mboup dañu koy sant chaque jour sant koo xam ne am na fu muy commencé muy amul fu muy yem loo xamante ne nii bu la ko nit defalee te du sa papa du sa yaay du sa mbokk mu sa ci yow te ñooñu mënal la ko defaluñ la ko wala donte buñ ko mënul sax nga gis ko la ko defal foo toog ko parce que ku la tudde doom wala ku la jàngal nooy liggéey wala nooy am kooku foo war toog da ko war a sant ñu lay xelal lañ lii dañ ko bëggoon a def bu yàgg mënuñu koo def ñu gis opportunité bu mel nii ñu def ko kon dañ koy santaat di ko gërëm di sant ku ci mel ni euh, Cheikh nit ku baax nit ku wàcce boppam ba mel ni suñu morom suñu papa kon dañ koy sant di ko gërëm di santaan mbër yi nga xamante ni ñoom la ñu defandoo formation bi di sant ñuy jàppale euh, per Bamba parce que per Bamba amul doole comme ni nga koy waxee ak ni ko ñëpp di waxee na ko état jàppale 3 3 FPT na ko jàppale bu baax a baax parce que mu jàppale ko mooy suñu njëriñ ñun ñi nga xamante ni ñooy def formation bi tey bu ñu defee formation bi amul ku ko jàppale après dañuy waraat ci mbedd yi di taxawal rek parce que yor sa carte wala yor sa diplôme amul foo liggéey di wër di taxawal si mbedd mi amul benn njëriñ. kon nañu fexe nuñ ko jàppale même bu doon bu doon juróomi mbër ñoo siy liggéey ñoo xam ne am na ñuy liggéey ñenn ñi xaar leneen parce que yàlla matalewul lépp ñii dañuy am lii ñuy am lee ku tekkiwul si làmb ji tekki si formation bii nii muy bi muy leneen ak leneen di leen sant nag di leen gërëm di sant ñi nga xamante ni ñoom la ñu bokkoon loolu formation bi métti woon na mais lu métti yàggul te góor moo koy def man dama jàpp ne làmb moo gën a métti lii sax te ñun ñu ngi koy def di ci am réussite di ci sant yàlla di ci gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ci jàpp di leen santaat di leen gërëm di sant suñu papa Bambou di sant ñi nga xam ne ñooy invité yi nga xam ne mën nañ jaar seen tur ak ñu mënul jaar seen tur ak suñu lancé yi nga xam te ne ñëw nañ tey ci invité bi di leen sant di leen gërëm wasalaam suñu papa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 moo waral nag ma ne mbokk yi jóg leen jóg jot na yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a seetlu ci seen yaram di bëggante bëgg a dugg ci soxna wala bëgg a am borom kër day jaadu ngeen seetlu seen mbir ba xam ndax dëppoo ndax seen i